jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. Boubacar Camara moom daal dinay xamle ni kon élection présidentielle dañ ko war a puusar rek ba ci kanam ndax jàppale ni kon réew Sénégal jamono ji mu nekkee kon ci pëccëxoo mënuñu fee am élection ginnaaw ñeenti weer rek moo ci daal di des te ñu jàpp ko kon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 mu jàpp ni kon jamono ji ni réew mi ni doxee moom leader bu parti pour la construction et la solidarité nag moom mu kon taxaw taxaw nañu temb kon ñu di sàkku loolee jëm rek ci daal di koy puus ba ci kanam kàddu wile suñu nattaango yi lee di les échos la ko daal di dénk ginnaaw réew mi kon na mu jaxasoowe mu ni kon nag lu jëm ci ay publication ci réseaux sociaux yi les opposants bi jàpp na ne élection yi kon nga xam ni ñeenti weer rek moo ci daal di des moom mi fi nekkoon directeur général di douanes sénégalaises kon daal dinay àddu ci tolluwaayu réew mi jëm ci wàllu politico social ak itam rek Sénégal ni mu nekkee ci wàllu urgence jamono ji ak liggéey bi nga xam ni kon mu ni doxul benn yoon te lépp dafa war a dellu nag ci jàmm ak salaam moo waral kon muy woote jëm ci jàmm ak gis-gis bi nga xam ni gis nañ na ko réew milee ñu war ko rek pousse ba ci kanam ngir ñu amal nag kon élection yu jaar yoon ak yu dal ginnaaw googe daal dina ci dolli nii jàmm ji ñuy sàkku waaye itam rek bëgg ko ci réew mi kon ci yoon la war a njëkkee liggéey boobee kon ña ca kaw ñoo ko war a amal ginnaaw gi kon ñu booloo suñu biir doon benn rek ngir mën a fësal suñu responsabilité ci lépp loo xam ni kon ñu ngi koy daal di def ci réew mi lee Ayib Daffé mandataire la bu candidat bi di Ousmane Sonko daal dinay naw lu ñeel kon wàllu opération parrainage yi nga xam ni kon bëgg nañ ko defal kii di Ousmane Sonko mu ni boobook léegi kon tàmbalee guñu ko tey jilee ñu ngi woyal xeex bi ngir nag daal di jot ci waaye nag may ñu leen dara ginnaaw jëriñ bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu karange bi réew mi lee nangul nag benn yoon rek daal di doxal dogal bi nga xam ni kon justice nag moom daal dina koy fësal foofee ca Ziguinchor ginnaaw xibaar yi nga xam ni jot nañ ko mu ni kon moom ay kàddu yu mu yëkkati jëm ci nag loolee tax na mu ni mënaguñu tàmbali benn yoon rek wàllu liggéey boobee jëm rek ci wàllu usman sonk mile lay jëm itam ci wàllu parrainage yi nga xam ne dañ ko koy daal di wutal mu ni nag lu ñaaw la lu ñu xaarul woon la waaye itam rek loo xam ni kon jàpp nañu fi mu nekk nii nañu rek jëm jëm jël lépp nag daal di koy teg ci loxo yàlla daal di doxal rek nànk xam ni kon mbir moomee amaana buñ ko defee dinañ dem rek ba daal am lu bëgg jëm ci mbir donc maanaam dal nank rek jëm ci kàddu yi nga xam ne ñenn ñi dinañ ko daal di xamle te mu nekk ay xibaar yu wérul